amelowe kikoko amelowe kikoko sikizali sikilolo amelowe kikoko amebeki sona amebeki sona. amebeki soda amebeki soda bebem bebem bebem am ngeen problème tey de Pauline Mbaye askan wi namoon la nag de trop heure boo ñëwee def fi doom déggal li alors je dois je dois t'appeler je suis émission dans cinq minutes d'accord ok jàmm nañ la parce que déggoo ma ne fii ba 12h30 rek bu dee 12h30 émission bi yàlla baax waaw ah. li defal lu la saf léegi. léegi yow dañ lay tegal sa son nga def lu la saf. waxi dof. loolu nga prévoir. loolu laa bëgg a parce que léegi bàyyi naa waxi nit waxi dof rek que du genre moom may oto. oui waxi dof moom may oto. il paraît que ñaari oto nga am léegi. deux deux voitures dorées. oui rouge. oui ñaari iPhone 11. oui maa ngi ciy fóonante du eh, eh, genre. Samsung nga génnee sangu piscine baaxul sangu piscine. <laughs> du genre affaire yooyu maa ci def lépp daal. amoon naa si 14 gën ñaari gaañu. et puis et puis maa bëgg ñaari yaar xaale àjjana. et puis li ma ci gën a neex mooy léegi tu viens de Panam. moi je suis en Panam waaw yow. ah oui alhamdulilah. <laughs> eh bah oui ah alhamdulilah ah à part dont je dis dina woowee Pawlish West West. wala non West West laa dégg. mais quoi wala. West West. dimbali maa dimbali maa mais mais kii mën naa xoolee trop yéen. mën naa xoolee kan. xanaa soo bi bu dee noppi na ci ginnaaw tegal leen ñu soo bi rek mu way te dem dimbali leen di rek. Mhm. dimbali leen di waaw. waxi dof la waxi dof de dama gaaw baa incha allah bu soobee suñu borom may oto mais may ay yooyu may fu ay ku ma ko nar a bàyyi mi ngi mel ne oto ba mu fuuda ba xam dina daw mi ngi mel ne nga ne mu chargé dina woote waxi man dama mën a way sooy wax seetul sama laaj bi dafa doto man gàtt naa ñu naa ñaaw naa lu may dimbali xanaa la et ca Macky sax Sall la sant et ca ndoxu géej sax sant xorom waaye xar la la sangu lay moo xasaw ana Ousseyn sama xarit bi Ousseyn foo nekk ci sama naataangoo yu fay na rek soo gisee man du ma xeebi xam nga mooy lan suñu borom dafa jël sama balee def ko ci géej jëriñ di ko lekk nit ñi di ko lekk ndox dama gaaw a fay ay ku jël état soo xeewel ma bi ni ma la <laughs> Moussa Fatal Serigne Khady Lo Moustapha waxi dof am na solo ci biir dina waxi dof la way bi dama koy way képp kuy dof ñoom ñaako sama naataango mi dof piir sama xarit nga xam ne da ngaa dof dof waxi dof am solo léegi nag fecc bi nag fecc dof piir la sa loxo ngay teg sa bopp tey moom leen fecc bi nu muy neexee fecc dof kaay leen ñu doo waxi dof mi ngi mel ne nga ni oto ba mu fuuna ba xam dina daw mi ngi mel ne nga ni téléphone ba mu chargé dina woote mu xëy man dama mën a way sooy wax seetul sama laaj bi dafa doon man gàtt naa ñuul naa ñaaw naa lu may dimbali xanaa waxi dof la e ca Macky sax Sall la sant e ca ndoxu géej sax sant xorom waaye xar la la xar la wala mu toom waxi dof la est-ce que dimi problème moom dina sangu lay boo xasaw ana Ousseyn sama xarit bi Ousseyn foo nekk ci sama naataangoo yu fay na rek waxi dof la soo gisee man du ma xeebi xam nga mooy lan suñu borom pare def ko ci lekk nit ñi di lekk ndox ma gaaw a fay. ay ku jël intention xeewal ma wala nga iñaane ma ay ku jël intention xeewal ma nga iñaane ma sama bay de bi ni ma jàppee dafa nekk maa ngi fonante sangu piscine waaye ay waxi dof moom solo ci mi. waxi dof la. Moustapha Tall Seri Khady Lo Moustapha waxi dof am na solo ci biir dina. waxi dof la. waay bi dama koy way képp kuy dof ñoom ñaa ko sama naataango mi dof pire. sama xam ne da léegi nag fecc sa loxo nga sa bopp tey moom lañ fecc bi nu muy neexee fecc waaw da nga play ba ci digg son bi nga ni woy bi waaw xam nga nit moom nit du nax boppam te moom su ma def studio li nekk sama xel laay wax li nekk sama xel laay wax ma ci passé passé naa ko woy bi maa ngi ko soog a dégluwaat du ma ko dégluwaat waaw moo tax kon li nga woyoon ci way bi. mënu ma cee jaaraat beneen moo lu jàpp benn parole laa jax muy waxi dof lu ma ci waxaat fàtte naa ko moo tax nit ñi nit ñi ñi may message di ma saaga jàpp leen ni ma loo wax fàtte naa ko da ngeen may dimbale ci loolu xam nga nit ki way lii fàtte ko xam ngeen kooku du nit. reewaan waaw eh, ah waaw waaw damaa réew moom macha allah. reewaan nañ ci tamit ah. réewe xam nga réewe dugg bari day indi dof. moo tax ñu moo tax ma am benn tig bu may indi muy waxi dof. Hmm. moo xam ne waxi dof dafa am solo. mu hmm, amee solo. ok bonne question. ñëwal. laaj nga lu am solo ISRA yaa ngi may soog a laaj journal yi yëpp ñu ma invité. yaa ngi may soog a wax li am solo. yaa ngi may soog a wax. sama xarit bi moom kii sama xarit. waaw kay wax yu wax ah non non non yéen a ma invité ngeen damay bàyyi ma vidéo ma nii laa mel damay vidéo rek chaque tournée rek nii laa def nii damay vidéo damay vidéo rek. Nafi moom sama xarit. waxi dof ni mu amee solo. waxi dof li tam am solo. Mohamed. xam naa da ngeen ñu koy may rek tey. waxi dof man ah, man daa moon fóonante. ni xam logique dafa. non non di waaw mais mais parce que logique laay wax parce que da ngeen ma non ah ngeen wax oh, non non man ngeen ma wax leneen da lu ma neex laay wax man. yéen a ma invité lu ma neex laay wax. li ma mel laay wax ba fi ma nekkee ak ni ma commencé daal daa amoon fóonante du genre affaire yooyu. waaw dama ni. amoon amoon ay guerre du genre affaire yooyu. waaw moon daa moon sangu piscine piscine ko jàppoon ay géej laa jàppoon piscine. may su ma demee bay sangu piscine. Ah, di sangu peignoir dama ko jàppoon jàllaabe mosu woon gis peignoir léegi su ma commencé di tëdd kii kili Mohamed di sangu piscine. di dawal ñaari oto di dawal deux deux voitures ak rouge waay <laughs> yooyu ñaay iPhone dooxee ak noir kon damay sant yàlla Mohamed. dëgg la sama néeg moo rawoon sas bu tawoon. yow Pawlish moo lay <laughs> ma <laughs> dof ñëpp parce que mënu <laughs> ay dof lañ. jërëjëf non non la. da ngay dem. déw ma émission bi day jeex a barke alxuraanu karim ko di ma diri bon yéen a ma invité. yéen ngeen bàyyi sama yéen. waaw waaw kay waaw koo tàkk waaw koo tàkk du de du ma génn ma invité non du ma du ma de waaw fexe na ma génn waaw du waaw fexe du du ma génne ah yéen a ma génne yéen a ma génne waaw def na